Cheikh Mbacke Thiam laa tudd dëkk Njaareem gii ci Bokkangatul Mubaarak waaw loolu daal daanaka sëñ bi moom mën naa bañ a gudd moom ndax wàllu làmp yi nga xam ne daal dafa tumranke ci tëli bii nga xam ne moo moo moo jëm Touba dañoo gis ni dafa lëndëm lënd bàyyi boo xam ne jégg na dayo loolu nag ñu gis ni dëgg yàlla monsieur le maire mi ngi góorgóorlu bu baax waaye nit ñi ne dañoo amoon ci moom yaakaar ba fal ko yaakaar jooju ñu amoon ci moom nag ba léegi dañu ci ñun waaye rek waxtu wuñ gisee loo xam ni lees war a jàmbat la des ko war a jàmbat waaye tëli bii nga xamante ni moom moo jógee daanaka moo moo wiraas semte jaar kër sëñ Tafa Gueye jaar jumaay ji ba ni nga rombee clinique Diop ñu nekk kër gu mag gis na ni benn lampe bu ci nekk boo xam ni ni nga ko leeral amu ci te ay gone fi nekk ak jigéen ay sareet di fi jaar gis nañ ni yàqu ci sa bopp gis nga fi ne tëli baa ngi nii benn lampe boo xam ne mi ngi ci amul te yaakaar naa loolu suñu jumu nag liggéey maire la mi ngi góorgóorlu nag waaye ñu ngi koy ñaan daal lampe yi moom lu mu ci man lu mu ci man na ci taxaw ngir dëkk bi mën a leer ndax lëndëm lëndëm lëndëmaay boo xam ni àgg na sax ci ñi nga xam ne dañuy jigee dañuy fajaru di oreelu jëm Dakaaru dañ leen agressé te loolu jaaduwul accident yi itam tubaarkaal la avant nga ñëw léegi am na jakarta boo xam ne am na rëmbëkk fii léegi la ko waral nag mooy ñàkk a gis fi ngay jaar ba téeli téeli ji moom foo toll di ko dégg loolu nag ñi ngi ñaan monsieur le maire mu taxaw ci loolu dimbali ñu ndax kër gu ma lañ dëkk foofu fi lañ am Sëñ Tuubaa la ñu yaakaar waaye dëkk bi ak lëndamaay bi moom lu mu ci mën na ci jàpp ci biir dëkk bi sëñ bi biir dëkk bi biir koñ yi biir mbedd yi daanaka moom ñu ëpp ñu ni agressé ci biir mbedd yi lañ leen agressé ndax kiy jógee këram kay doy na waar imaam yi imaam yi sax bu ñuy julli ji wala noddukat yi ay ay ay yat lañuy bokk waale ngir aar seen bopp loolu la ko waral nag mooy dëkk bu lëndëm nañu dimbali ngir yàlla ni kaw tali bi lëndëmee noonu la mbedd yi lëndëmee waaye day am loo xam ne daanaka bokk sosee te doolay réew mi tollagul foofu wala doolay dëkk bi mën na koo bañ a mën na koo bañ a attan waaye li gën a taxaw temm moom mooy kaw tali bi nga xam ne ci la oto yi jaar camion yeeg biis yeeg sareet yi ci leen di jaar ba noppi kër gu mag bari ay gone bari ay daara te amul benn lampe buy tàkk ci kaw tëli bi loolu lañ bëgg moom mu saafaraan na ko moom ndax mooy sunu sunu naqar loolu la ñuy jàmbat biir mbedd itam lu mu ci man ndax am na ci ay poto yoo xam ne mi ngi fi ñu installé ko mu yàgg ba léegi kon di ci bari ay pile la manqué yi nga xam ne nag laaj na ay pile nañ ko soppi yi nga xam ne itam laaj na ñu am ay pot lampe nañ def ay pot lampe waaye waxuñu ko ngir ñaxtu waxuñu ko itam ngir saboté ko waaye dañoo bëgg mu xam ne daal réew yi moom ñu nag moom ñoo ko bokk dañ koo fal nag mu nekk maire boo xam ni soxlay dëkk bi moom lañ ko moom lañ dajale teg ko ci loxoom kon nag buñ gisee loo xam ni war nañ ko jàmbat dañ koy wax ba ñëpp dégg ko mu xam ni loolu moom day maanaam duñu cellawaale loolu rek ndax ñàkk wax moom wax la waaye nag boo gisee la war a tam nga wax ko waaye dëkk bi moom jàmbaar na mi ngi liggéey waaye nag lëndamaay bi moom wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan mu dimbali ci moom ndax ëpp na lool te waaw ñi ngi sàkku ñu dimbali ñu ci bu baax ndaxte boo xoolee diggante bii ñu nekk diggante ay daara moo fi nekk lu mel ni kër Serigne Mor Mbaye Cissé ngi fi ak kër Serigne Tafa Gueye te ay gone yu ndaw ñoo fi nekk bu yàggul rek keroog talaata fii ci buntu kër Serigne Samat Gueye gii la ab oto mbëkk benn xale te loolu li ko waral mooy ñàkk ay doodaan te oto yi duñ daw ndànk léegi nag bu ñu dimbali woon fi tolloog daara Serigne Mor Mbaye Cissé ñu dimbali ñu defal ñu fi doodaan dana dana dana dimbali ndax gone yi ñoo fi nekk kon war nañoo dimbali ci gestu ñu bu baax lëndamaay bi jéggi na dayoo suñ ñu dimbalee ci ay lamp ñu jël ndax lu toll ni route nationale te benn lamp tàkku fi comme ni ko suñ see waxee boo tourné ca semte ba ba ngay génn dëkk bi ca xojil ab lamp tàkku fi te loolu nag jaarut ci ab route nationale liñ ñuy dimbalee mooy ñu dimbali ñu ci ay lamp ak ay doodaan ndax sog yi bari na te yooyu doo nga ko sabab boo xoolee fii ci route nationale bi kër Soxna Fadja la doda la doodaan yi yem te boo boo rombee kër Soxna Fadja da yaa ngi romb daara Serigne Mor Mbaye Cissé ak Serigne Tafa Gueye yaa ngi dem ba daara Serigne Malick Dieng te diggante boobu ay gone képp ñoo fiy traversé doodaan yi ñu ngi yem ci jumaa ji te li romb jumaa ji yëpp ay daara la kon li ñu war a dimbalee mooy ñu defal ñu donte ñaari doodaan la ci diggante boobu lu toll maam lu tolloog ko ñu armeel ya ak kër Serigne Mor Mbaye Cissé diggante boobu bu ñu dimbalee mu am doodaan ñu jël.
ñun de fii ay citoyen la ñu dëkk ci dëkk bi juddoo fi yaroo fi màgge fi amuñu lu dul njaareem njaareem rek lañ am moom la ñuy sagoo moom la ñuy wàlle ay citoyen lañ yoo xam ne bu ñu liggéeyee ba wàcc fii la ñuy daje waxtu wii ba mu gën a guddi lii ñu tasaaroo ñibbi suñuy kër ginnaaw ci dëkk bi lañ dëkk nag juddoo fi yaroo fi liy defar dëkk bi rek moo ñu soxal loolu moo tax ñu gis lii mu naqariñu lool moo tax ñu di ko ñaxtu bëgg ci it ay saafara ndax ni ko mbokk mee waxee ci doodaan yi école franco dañ faa def doodaan peinture fa rouge blanc ba nga xam ne fii ab école la fi nekk boo ñëwee da ngay da ngay wàññi taxaw surtout bu élèves yi dee génn nañ defee foofa nag école boobu da école bu nasaraan daari Serigne Mor Mbaye Cissé ji ak daari Serigne Moustapha Gueye li ci nekk ci ay donga yuy jàng ñoo ëpp foofu la ne ca franco boo jàllee ba ci armeel yii daari Serigne Malick Dieng ak mboolem la mu ëmb moo ëpp fuuf la nekk ci école franco kon nañ def foofa ñu ngi ñaan monsieur le maire na ko def ci diggante ñaari barab yii lamp yi itam wax nañ ne boo rombee tournalu CMT bi ba ba ngay génn ca dëkk ba ba ba ngay àgg ca sortie ba ca rond-point ba lamp ba fa newoon sax booba nga xam ne salaire ko doon doxal daanu na kenn waxatut moom booba ma ngay tàkk tàkkatu foofu ba fii benn lamp tàkku fi kon nag loolu moom na ci góorgóorlu bu baax a baax bu fekkee compétence su maire danaan compétence su état la ndax route nationale la it maire moom na soññu état ba état def fi ay làmp muy leer naññ ni mu war a leere biir koñ yi it daanaka ñi ci ëpp léeg-léeg da ngay gis koñ bi ka fa am doole mooy dem neexal waa Senelec wala mu fexe ba amub làmp dikk ñu monteel ko foofu lu dul loolu làmp amul ñii wax nañ la léegi imaam yi wala noddukat yi ku ci amut sa waruwaay wala am ku lay jëli boo yeewoo di julli si da ngay bokk aw aw yat wala kuur gu ndaw ci sa biir ngir nga mën a ñëw julli si kon loolu moom naqari nañu lool ay citoyen la ñu dëkk ci dëkk bi fii suñu barab boobu daje la boo xam ne saa yu ñu wàccee lañ fiy daje di waxtaanee lu soxal dëkk bi ñi ngi ciy waxtaanal ñi ñu war a waxtaanal maire naam àgguñu ca moom waaye am nañ ñoo xam ne ña ngay àgg ca maire ñooñu yëg nañ suñu njàmbat lii wax nañ leen ko xëy na ñooñu nag bu ñu àggee ca maire danañ ko ko wax xëy na suñu kàddu gi it fu mu jotee ba maire dégg ko wala koo xam ne koy jàppale maire la boo ko déggee na nga jàpp ne kàddu jàmbat la goo xam ne ñi koy jàmbat ay doomi dëkk bi la ñu fi juddoo yaroo fi ñooñu kon nañ ko jottali maire ba maire yëg ko lu mu ci mën ci saafara mu saafara ko bu fekkee moo koy def mu defal ñu ko ngir yàlla ak jëmi sëriñ bi ndax sëriñ bi fii la am fukki at ak juróom yoo xam ne nii pencam mii lëndëmee boo rombee pencam mii ci route nationale bi ba ba ngay génn penc bi sëriñ bi yelloowul loolu doomi dëkk bi it yelloowuñ loolu kon loolu moom lu ci maire man na ko def bu dee fekkee compétence su état la it moom moo war a soññu état ba état. waaye lii ñu def tey ab tàmbali la lii ñu def tey jàmbat ko ndax tey it jëkkewut tey laataa tey saa su ne dañ ko daan waxtaanee ñu ngi ciy waxtaanal ak ñeneen ak ñeneen tey nag dañoo jàpp bis boo xam ne bisub jàmbat ko la ba ba ba ba ñu yëg ne naqari nañu waaye bu rombee tey duñ ko bàyyi mboolem kuñ ci war a waxal danañ danañ ci wax ak moom bu àggee ca maire war koo yëg te dana ko yëg sax mu yëg ko. waaye it yemut ci loolu ndax ñun kuréel lañ goo xam ne bu dul loolu kuréel lañ gu yaatu lool goo xam ne am na mbooloo mu baree bare bare moo xam ne ñu ngi ci sunu gannaaw ñooña mën nañoo ànd ak ñoom xeex ko waaye nag dañoo toll ci faasu jàmbat boo xam ne dañuy jàmbat waxit maire ne lii warteefam lan na ko def bu dul warteefam di warteefu état na ci soññi état ba état def ko. amu fi amu fi amu fi dara amu fi même fii toujours day ni ni ko kële waxee. toujours oto yi nu leen neex lañ fi dawee surtout biis yi ci tournal bii léeg-léeg daanaka bu waxtu wi jotee nga xam ne dañuy dem Ndakaaru di di jëli client yi ci yoon wi daanaka dañuy dañuy njëkkante daanaka bu biis di génn rek buy taxaw di wàcce client rek keneen a nga koy doublé ak i xel yu métti ci diggante bii nga xam ne ay gone rek ñoo fi ne loolu moom wax dëgg moom lu lu lu mat a saafaral doo daan yi moom lu mat a saafaral la ba noppi nag lamp yi ñëw tegu ci kawam loolu moom lu mënta ñàkk la ci diggante bii moom.
Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma dafa waxoon ni am réew boo ci nekkee te mënoo koo génn la fay xew na doon sa yite comme que réew yi moom buñ ko soxlaa ñoom dañ koy laaj te buñ ko laajee soxlayu nit ñi nit ñi yiñ soxla nag nga xam ne dañuy taxaw ci yitte yi jox leen ko waxtu woon gisee tamit ni sonn nañ ci jox leen réew mi jàppale leen taxawu leen ba nit ñi fal leen loolu du yem du yem rek nag ci bu leen falee rek di leen seetaan du leen fa kasal nag waaye waxtu wu nu gisee lu nu war a wax itam dees na ko wax kon kóllëre dëgg la aqari dëgg la waaye nag nit ki itam saa bu dee liggéey am lu ko des da nga koy wax kon loolu bu ko nit jàpp jàppee ab jàmbat buñ ko buñ ko jàppee ñoo xam ne dañoo bëgg dañoo bëgg rek ñu dégg leen wala ñoo xam ne dañoo bëgg rek def benn benn benn signal boo xam ne lañ ci jublu mooy déedéet waaye lañ ci gis rek mooy dimbalee ci yi ñu wax ba ñaxtu yi ñu wax muy tableau yooyu muy dodaan yi muy lamp yi dëkk bi mu leer loolu nag lu mu ci néew ñi ngi ñaan yàlla mu may ko kattan ba niñ ko bëggee xalaate ko noonu suñu borom may ko kattan googu ñi ngi sant ñëpp di la gërëm baax yow itam asalaamaaleykum wa rahmatullah